salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum tey Ndoye Bane moom fi indi Ndoye Bane xaw ma Golo Bane Ndoye Bane bàyyil fen ngir yàlla Ndoye Bane on est fatigué la jeunesse meurt ci ndox mi 480 personnes dee ci géej nga taxaw un bon jour xëy ci sa télé ndekk ba suur ak sa koll bu rëy di jaay baraay baraay bu vingt di fen di wax lu la neex nit ñi décréter benn deuil national comme état bi dafa faillir état bi dafa échec nanguwu ko yow nga jàpp ne jàmm gi ngay jaamu taatu état bi jaamu gi ngay jaamu ay nit fen yi ngay fen pour jaxase ay nit moom mooy doxal Sénégal pour yow da nga tëj wala da nga gën booy dee fii dooy baan xoolal da ñoo war a may jàmm comme léegi ñun ñëpp xam nañ ne tu un chroniqueur politique boo xëyee suba ba ngoon xoolal na ngay tagg ay nit ak di marché ni taat jeunes yi di dee fii nit ñi di ko naqarlu ngay xëy di ci wax yow doo nitu dara dooy baan traître nga workat nga thank you